salaamaaleykum bokk Sénégal maa ngi nuyu man dalu dakar yéen ñi nek biir Touba di euh, magal tay nga xamni magalu màggalu Kazu Rajab ñu ngi leen di siyaar di ñaan yalla yalla yalla taas ñu ci barke serigne fallu han ah. euh, man dalu dakar maa ngi nuyu ci fi ma yene kay kaay ayca ñu da dem ci site euh, site quotidien ñu def Macky il face à ses à ses défis ah Macky il face à ses défis jour d'investiture pour la seconde mandat du chef de l'État

dadi wat waat ne je le jure waxuma ko li nga xam moy mooy Dakar Times sa wax suma ma ci Dakar Times damay dem ci les échos Macky s'engage encore devant Dieu et la nation manam ki nga xamante moy mooy Baye Amadou Sall kon Marème fay Sall borom palais ba borom gan ñu bari ñi ah borom PSE borom terre mom moo ah, ah euh, dafa war taxaw wat ci kanamu sunu borom waye tamit wat ci kanamu Sénégal yi nga xam ñoko wolu ba joxat ko mu fal deuxième mandat euh, mi nga xamante moy les échos les échos dañuy dem ci euh, la turbine. ñu def euh, quinquennat au défi majeur, les perspectives d'un Sénégal gouvernant mbokk Sénégal euh, président Macky Sall moom lépp lu xew ci réew mi da koy yëg par seconde instant yi may wax xam naa ni mi ngi koy dégg président dama lay ñaan émergence ci biir kër yi émergence ci banlieue yi émergence ci néew ji doole ji président émergence ci maladie président émergence ci ñi ci prison yi président émergence ci taalibe yi président émergence ci biir quartier yi man de man daalu Ndakaaru maa ngi lay ñaan émergence ndax xam naa di ko def